bisimilah asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi ndigal jóge na fa mu daan jóge jaar ci sëriñ Muntaxa Mbàkke mi xalifa général kullu murit yàlla na fi yàgg te jaar ci bàyyi Cerno Faali mi xalifa sëriñ Aliou Diouf Lambaay moom itam yàlla na fi yàgg te ñëw ci njaboot ak busura gépp nga xam ne tey ji yoonu murit moo woote yoonu lislaam moo woote yoonu diine moo woote yoonu murit ak lislaam nag bu ñu wootee boo ko làmbee ci làmbaay di ko fa daj ci waa kër Sëriñ Aliou Diouf làmbaay ñoom ñi nga xam ne xam-xam ak diine ak ak taalube ak yar ak teggin ak ngor ak lislaam ci ñoom la juddoo ci ñoom la sax fa la ñu dëkk ñoo woote ca bi làmbaay daay daayira bu ñu wax Bosora di sëti Sëriñ Aliou Diouf làmbaay yi waaye nag képp koo xam ne nii Sëriñ Tuubaay sa maam ci sët yooyu nga bokk ku Seex Ibra Faal di sa maam ci sët yooyu nga bokk lislaam sax ku muy sa maam ci sët yooyu nga bokk sët yooyu ñoo wootee te wootewuñ ci lu lislaam ak diine ngoor wooteel ko Sëriñ Tuubaa di rafetlu kàddu yi fi jaar yëpp di soññee ci lii nga wax muy woote Sëriñ Aliou Diouf làmbaay jàmbaari Sëriñ Tuubaa ja ka dereetam ko joxewoon jëmmam ko joxewoon boppam ngir lislaam taxaw kooku la ñu wooteel bis ñu koy woote ci ñiibi làmbaay ñuy wax ci turu daayira bépp ak turu njaboot ak Serigne Aliou Diouf làmbaay gépp di ci woo ñëpp nag ñu kenn bàyyi ñu fenn bàyyi bàyyiwuñu ñenn woo ci nga xam ne moom la njëkk a tudd muy sunu maire commune muy Abdoulaye Wilane di maire commune bu Kaffrine di ci teg sous préfet bu Kaffrine ak sous préfet bu ñiibi ak préfet bu Kaffrine di ci woo honorable député soxna Awa Niang deuxième caissière à di woo député soxna Ami Ndiaye dëkk ñii bi di ci woo monsieur le maire El Hadji Mansour Ndiaye di ci woo opérateur économique Aliou la di ci woo njabootu ñii gépp ak Bawol gépp ak Lambaay gépp ndax bu ñu waxee ñëpp ñu kenn bu ñu waxee fépp ñu ñenn kon ñoo ngi ñëpp di soññ ñëpp di soññ suñu bopp di soññ njabootu Serigne ju Lambaay gépp ku dala ci sëriñ mut Cheikh bàyyi woo kenn boo yowee ci sëriñ Massamba dajal nga njaboot gépp kon ñoo ngi ci woo képp ku sant Diouf di ci woo képp koo xam ne bokk na ak sëriñ Touba te sëriñ Aliou Diouf Lambaye sequ na yow ci kër sëriñ Touba ñoo ngi lay woo ci bis boobu ndax moom rek lañ am. ni ko ñi jiitu waxee Cheikh Mahmoud Bachir bis bi eh, ñuy waajal ca Lambaye ñii bi le 28 tombé ak talaata incha allah ñu am ñoo xam ne seq nañ ñoom kóllëre muy kóllëre goo xam ne yàgg na lool ci kër gi mm-hmm. lim leen da dul mën a ñàkk lim gi nag nekku ne liñ ñun lim dong lañ soxla ña déggu seen tur ñooñu lañ gën a yittewoo ca bis ba. tey ñoo ngi koy yëgal Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou mi nga xam ne ñoo bokk dund fa dëkk foofu ci tund ba di ko yëgal it Cheikh Ahmad Bamba moom Cheikh Abdou Lahad di ko yëgal Serigne Jili Mbacke moom Serigne Fata di jërbaat ci kër gi waaye di ko yëgal Serigne Modou Mbacke Darou Salaam ak rakkam di ko yëgal it Serigne Modou Mbaye ak rakkam di ko yëgal it Serigne Bachirou si mu mel ni kon soxna Bali moom Cheikh Mouhamadou Mountakha di doom ci kër gi di wóolare ci kër gi ñoo ngi ko yëgal bis bi te ko ci woo Cheikh Abdou Mbacke moom soxna baali moom it di kóolëre ci kër gi ñoo ngi ko yégal bis bi te ko ci woo maître Madické Niang kenn ku ne xam ko ak kër gi moom it ñoo ngi ko ci woo te di ko yëgal Cheikh Abdou Mbacke moom moom it ñoo ngi ko yëgal ko ci woo Pape Diouf di doom ci kër gi moom it ñoo ko yëgal te ko ci woo ak Papa Diop di kóolëre ci kër gi moom it ñoo ko yëgal te ko ci woo Alaaji Baare gay keneen wil moom it di kóolare ci kër gi ñoo ko koy yëgal bis bi te ko ci woo soxna maam xari Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadou Mourtada moom it ñoo ko koy yëgal te ko ci woo sëriñ Ka maire Touba moom it ñoo ko yëgal te ko ci woo soxna maam Faati Mbàkke bintu sëriñ Sidi Mbàkke moom it di doom ci kër gi te wëlal kër gi ñoo ngi koy ñoo ngi ko ci woo te ko yëgal sëriñ Moustapha Diouf di doom ci kër gi di jàmbaar lool moom it ñoo ko yëgal bis bi te ko ci soññi nam ci daan taxawee rek mbay Babacar ñaŋ di jarbaat ci kër gi moom it ñoo ngi ko yëgal di ko soññi nam ci daan taxaw moom it Serigne Assane Mbacke moom it kenn ku ne xam digganteem ak kër gi ñoo ngi ko yëgal te di ko ci soññ di ko ci woo baax a baax Aliou Penda Diouf moom it di jarbaat ci kër gi di taalibe ci kër gi di doom ci kër gi moom it ñoo ngi koy yëgal taxawaayam ci daan defit ñoo ko koy soññ te di ko fàttali Serigne Abdoulahat Ndiir moom it di doom ci kër gi di taalibe ci kër gi ñoo ngi koy yëgal bés bi taxawaayam ci daan am rek di ko soññ baax a baax alhaaji Moodu Maodo Sarr moom it ca Jaxaw Saalum moom it kenn ku ne xam na diggante ma kër gi ñun ñi féete ci làmbaay ñi bi xam nañ ko ñoo ngi koy fàttali bis bisam la na daan taxawee Ousmane Dione moom it jarbaat ci kër gi moom ñoo ngi ko yëgal te di ko ci soññ Fadilou Bey di taalibe ci kër gi moom it ñoo ko koy yëgal te di ko fàttali ak alxaaji Ngumban Dione moom it ñoo ngi ko yëgal te di ko fàttali. kon bu ñu xëyee bu soobee yàlla ci bis ba bu neuf a jotee dañ commencé njàngum kaamil yi ba deux heures incha allah ñu xat mu ñaan. Euh, euh, dem ci bernde yi bu ñu berndee ba noppi incha allah bu ko yàlla dogalee ci ngoon gi 19 heures <clears throat> la ñu commencé cérémonie officielle bi ñëpp génn ci baas bi sëriñ Xaadim Guèye mooy kii fanaane jàng ya incha allah. mbokki julli mbokki taalibe ba ñu leen siyaaree ba noppi ñoo leen di yëgal sunu bisub jàmbaar ja muy Cheikh Aliou Diouf Lambaye man nag maa ngi wax ci turu daayiratul Busra ëmb soxna yëpp. sët yi lëkkalee kër Sëriñ Aliou Diouf Lambaye tudde seen bopp daayiratu Busra di ca woo mbooleem jigéen ñi nga xam ne dañ ca daan jàpp ca nuñ ca jàppe muy ca waañ wax muy ca liggéey ba muy ca toppatoo gan ña tatagal leen ñoo ngi woo mbooleem seexi Serigne Touba yi sunu maam yi daje woon ak Serigne Aliou Diouf Lambaye ca kër Serigne Touba di sàkku ngërëmam am gañ ko am waral ñu wutal leen bisub màgg boo xam ne dañ ciy siyaare di ci barkeelu di ca tibb ca xiiwale ñu cay woo ñëpp bëgg ñëpp jariñu ci ndax Serigne Aliou Diouf dafa doonoon jàmbaari Serigne Touba joo xam dafa liggéey Serigne ba mu am ngërëm mu ne ko làmb naa la làmb làmbe la làmbaay su doy mbalaan sàngoo ko sàng say gaay yowmal xiyaamati dinaa la siggal siggal sa bokk yi ba ngeen am njëggal njëggal googee la ñu yéene jullit yëpp yëpp am ci àddina ak àllaaxira ñoo ngi cay woo ñëpp di woo jigéen ñëpp bis bi nag la vingt le 28 janvier la ca ñii bi làmbaay ñoo ngi soñ nit ñii bi ñu fa dëkk nga xam ne fa la gan ne jëm di xam ne mbooloo ngi ñëw te mbooloo naqari naa yor ñu wàcc seeni xol yokkaat seenu njàmbaar yokk seenu taalibe yaatal gan ñi te ànd ca liggéey ba takk seen ndigg te fas ca lu ñu bëgg ak mboolem koo xam ne jullit nga te di fa ñëw nga fas ca la nga bëgg ñoo ngi ñaan Serigne Touba ma defal Serigne Aliou Diouf Lambaye xéewal yi képp ku fa ñëw mu defal la xéewal yooyu ñu bokk ñu ñëpp jariñoo ko ci barke Cheikhouna Ahmadul Khadim ndigalu Serigne Thierno Fallé Diouf xalifa Serigne Aliou Diouf Lambaye yàlla na yàgg te na yàgg Thierno Fallé Diouf daa wax ne bis bii ko ñor bu ak njabootum wër te ku xam kër gi boo xoolee ñi fi nekk da nga xam ne ku bokk ci kër gi boo fi nekkut it sa doom nekk na fi mbaa sa jëruñ nekk la fi kon mu ànd ko njaboot Sëñ Aliou Diouf Lambaye gépp góor ñi ak jigéen ñi seet yi ak taalibe yi ak bokki jullit yi muy bis bu ko ñor boo xamante ne bi Serigne Thierno Diouf Lambaye moo joxe woon ndigal li ci kaw ndigalul magam ju baax ji Serigne Mouhamadou Fatou Diouf yàlla na suñu borom dolli seeni leer mu toogee seenub jataay nag di ko fàttali di ko soññee mu bëgg képp ku ko dégg mbaa nga na ko jot koo xamante ni kii déggu ko muy jox ndigal ne képp ku bokk ci kër gi foofu man di nekk ci biir réew mi te amuk wér daf laa soxlaa daf laa soxlaa gis ca bis ba ndax day bis bu ko ñor boo xamante ne bii da koo teg ci loxol sëti sëñ aliju Diouf yi nga xamante ne bii ñooy daayiratu Busra foofu waaye nekk nag na ci bàyyi xel te waajal ko euh, maanaam ñaar fukki nag juróom-ñett ci mois de janvier bi dëpp ak bisub talaata moom lay doon fa ñii bi làmbaay muy woo ñëpp di séentu ñëpp di ñaanal ku fa ñëw sa ajo ak képp koo xam ne ngaa yéene ñëw te mën a ñëw sëñ Moussa Ka nag daa waxoon ne ku bëgg a woote kenn bañ a woote nga woote Bamba sëñ Aliou Diouf làmbaay mi ñu woote nag sëñ Touba rek a tax ñu di ci woote kon ñu ngi woo ñëpp ak képp koo xam ne kii daa bokk ak mu sëriñ Touba